bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin salawatullahi wasalaamu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasuli ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mbokk yi maa ngi leen di nuyu sama tur di leen nuyu ci turu xalif général sëñ Cheikh Sidi Makhtar di leen nuyu ci turu mboolem kilifa diine wala kilifa lislaam ci àdduna di waxit ci sama tur waaye teew ak mbokk yépp ñu nu bokkal sëñ Touba. te loolu boo ko waxee day ndiru Mbàkke rek waaye dañ leen dañ cee bokk rek waaye nun ñëpp ko bokk di nuyu bu baax son excellence monsieur le consul ci wax bu rafet bi di nuyu tamit Mouhamadou Lamine Baara bi nga xam ne moo jàng le discours des comités di nuyu bu baaxit it le premier conseil de l' ambassadeur Bachirou di nuyu autorité française yëpp di nuyu mbooleem ñi fi teew góor ak jigéen wax ngeen bii mooy sec juróom-ñaareelu yoon septième édition ci lii loolu danañu may rekk ñu wax ne lii kon tàmbalewul fii juñu nga ko ñaar fukkeelu at ak juróom-ñaar ci New York dëkk bi gën a rëy wala bokk bokk ci yi gën rëy ci àdduna bi ku ne xam na ne New York ni doll ren la ñaar fukkeelu at ak juróom ñaar ñu def proclamation officielle tudde ko Bamba Day pour Cheikh Amadou Bamba ci Washington ren moo doonoon fukkeel wala mu mu ëpp ko boo xam ne tamit proclamation officielle la boo xam ne état New euh, Washington ñoo ko defal Cheikh Amadou Bamba Bamba Day ci Californie Los Angeles ci le 23 juillet moom itam boobaak léegi mat na fukki at ak juróom ñu defal proclamation journée Cheikh Amadou Bamba loolu am ci Atlanta am ci Italie am ci dëkk yu bare kon dafa mel ne France amagul su ñu fi taxawee tey ngir wane ne Cheikh Amadou Bamba universel la parce que li mu doon dox defe naa ne fii ñoo ko njëkk a yëg ndax français yi ñoo ko jël ñoo ko jëloon fanweeri at ak ñett yóbbu ko delloosi ko li mu toog lépp lool la ba bi mu fiy jógee 1927 loolu teewul dafa wax ne baale na kon ñun mënuñu ci sori kon ñun ñëpp baale nañu wante fàttewuñu nag. te loolu dafay wane rek ne kon xëy na bés bii même bu fekkente ne fii amagul jàpp nañ ne war naa mën a am ndax Nations Unies la ñuy defee conférence le vingt-huit juillet ci fa gën a mag ci àdduna kon loolu ñëpp réew yëpp fa daje loolu li muy firndeel mooy l'islam amul frontière mais nit ki koy yor mooy am frontière parce que Sëriñ Tuubaa afawtu anil aadaa la wax toran li waje man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfaaw damay wax ne li nu wax ku dégg arab li nu yéem ci wax wax bi lastu adfaaw moo wax du ma défendre te légitime défense ko ne xam ne ne am na ko sëñ bi nee na moom du waxuma sax di attaquer mais du défendre kooku kon jàmm fa mu koy xool ak na mu koy wute dafa beneen dafa nekk beneen logique waxeet li nga xam ne moo xew léegi comme ni comme l'ambassadeur du euh, le consul junjee foofu ci bi muy wax loolu boobu ci ci dix-neuvième siècle la ëpp na cent ans cent trente ans looy wala mat wala wala mat war na ko mat booba la waxoon ne moom inni ujahidu bil ulumi wa bi tuqa baatub jihaad booba la ko firi woon moom lii ñu ko firee léegi nga xam ne mooy violence takk ay bomb rey nit rey ñu joti wut ak yow dara nee na booba loolu moom gisewu ko noona ni mu ko gisee mooy defar nit ci xam-xam ci science defar nit ci comportement mais defar nit it mu respecté mooy lépp lu ko lu ko tuqaa mooy lépp loo xam ne lu bon la doo ko def mooy ragal ragal loolu moom la mu la firi kon nee na science ak lu dul bu lu ne doo ko def kooku nee na moom la gisee noonu baat boobu loolu kon yàgg naa wane lu bare kon su fekkente ne ay nitam ñoo ñëw fii ci réew boobu nga xam ne ñoo nu colonisé woon def loolu suñu xat sunu sunu Cheikh Cheikh Amadou Bamba te damay wax ne Cheikh Amadou loolu suñu ko waxee ñëpp a ko bokk juñu ko ko léegi sëñ Touba xamul murit xamul tijaan xamul leneen li mu xam mooy jullit ak nit ku baax même ñi nga xam ne sax déwuñ woon ay jullit di ay catholique te yoroon comportement yu baax amoon nag ñoom aw doxiin wu rafet def naa ne dialogue teeloon na koo tàmbali lool kon li am solo mooy euh, fi toll ak fi désordre toll ni loolu lañ ko mën a tudde te fii lañ koy waxee ku ne xam na ni kon loolu lii daf ko siggil lii niru na ñun day niru nañu ñu néew doole xëy na niroon nañu lu bare lu luñ jàpp ne manqué na ci noonu mais lii nu def tey action bu rëy la ci diine mais action bu rëy la ci monde bi fi mu toll. bare nañu yor ay milliards tey seen xel xalaatul wane lu jëm ci lii kon dafa mel ne àdduna toujours histoire dafay répété wu. mooy li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy nekkee Màkka nga xam ne demagul Madina sax dafa yàppale woon ci réewu Éthiopie te booba nit ku ñuul la fa nekk. moo yabal fa ay saabaam ak i nitam ne leen dem leen bu ngeen demee foofu nitu jàmm lañu te kenn du tooñ ci seen kanam kon nun lii dafa mel ne histoire moo si sëñ Touba wax ko yonent bi sallallahu alayhi yable woon ay nit kon bu nu xeeb suñu bopp ci diine waaye tamit nag bu nu ànd ci dara lu dul noona kon nanu gën a pàggu bàyyi xel képp koo xam ne jege nanu te lii di nekkul ci sa xel nga xam ne sa xel nga ci yàq sa xel nga ci wane paas ci lislaam wane wane wu ñaaw nga xam ne loola yow loo ca mën nga jéem nga wane ne loola dëppawul ak lislaam ndax lislaam kenn ëpp la wuñ gëm-gëm la bu yàlla wàcce béralu ko ma sàmm béralu ko ma demba ki ko gëm moom la ko jox waaye amul leneen la ci nekk kon nag ki ko gëm ku ko tooñ moom nga tooñaale ku ñaawal deram moom nga ñaawal deram kon bis ni ko tey ñi ngi ñaan euh, ñi nga xam ne ñooy autorité yi loolu nga xam ne bis la boo xam ne bu dajee ñu daje feeñal fa diine bu lislaam niñ ko amee ci dëkk yi gën a avancé yi gën a yi gën a rëy fii ñoom itam ñu jéem a góorlu ba am bis boo xam ne dañ koy dag dañ koy def ngir Cheikh amul Bamba mooy gisu lislaam loola dana seetal der tuuti ba tax na ñi ngi wax ci turu jullit yépp nag jullit yi gëm nag la ñu wax waxuñu jullit yi nga xam ne dañuy pratiquer rek di di dañ koy symboliser rek waaye jullit bi gëm nga xam ne la muy def ci biir néegam ma nga cay xool yàlla du def mukk lu ñaaw du ko wax ko du ko jéem parce que am na orientation yu ko yu ko defal te ki ko ko defal mooy boroomam te fasul yéene jàdd ci loolu kon ñi ngi gërëm ñëpp gërëm góor gërëm jigéen ngeen xam ne lii ndam la waaye buñ ko damoo nan ko gën a def mu duñu soññ nañ gën a góorgóorlu fépp fu jàmm nekk fépp fu du nekk nan ko wone ne nun noo neeral noo nekk ci lislaam buñ ca xeeb sunu bopp buñ amee buñ ñàkkee looloo juti wut loolu dara kon nag yàlla na nu yàlla dimbale nu fekkewaat ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ko di collectif bi di gërëm jullit yi fi nekk ngeen xam ne lii bu leen ko tuutal ñu fexe rek ba état bi tamit xam ko bu baax ba jëlal ko ñoom it seen bopp kon monsieur la consul ñu ngi lay sant de ñaan ngeen xool ci loolu te xam ni fañ ko amee ak fañ koy defee ak nañ koy defee ñoom rëy na lool ci ñoom loolu moo nu may lii de ñu xam ne diine comportement rek la diine du sembool diine yi tamit conviction rek la du gëm du du calcul kon loo ciy def rek nanga def li nga xam ne dafa nekk ci sa biir loolu moo la may résultat boo xam ne ñëpp danañ xam ne loolu moo la ko jox kon ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla may ñëpp jàmm may ko àdduna bi may ko ci réew mi ngeen nekk wante may ko itam sunu réew sunu kilifa réew yi tamit ñu may leen ñu yàlla may leen jàmm kon monsieur le conseil ak le représentant d'ambassadeur Bassirou Bassirou Faye euh, seen ñu ngi koy sant bu baax di leen sant ci seen taxawaay ñi ngi gërëm ñi ngi xam ne ñëpp ñoo ñoo organisé di ñaan yàlla mu defal leen jàmm asalaamaaleykum kon ñu bàyyi Mourtala tuuti mu résumé ko tuuti rek jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu